waaw Aïcha je vous écoute alors ñi gisoon ni euh, euh, gis nañ ñu nag daal di woon bu ngeen woote li nga xamante mooy conférence de presse tey ji à partir de seize heures uh-huh. ñu ñëw uh-huh. waaw loolu de moom euh, ñoo ko gisandoo ndax ñu ngi doog a yegg si yam ci mm-hmm. niñ ko mën a interpréter nag bari na nit ñi naan la peur et n'est pas de notre côté ndax ñun dañu nekk ci benn nekk ci stratégie ne dinañu xeex ba ñu dégguñu mais dinañu wax ba ñëpp xam li ñu teg Ousmane Sonko te dinañu wax ba lépp lu ñu def Ousmane Sonko askan euh, Sénégal ak àdduna bi yëpp xam ko. buñ ko xamee nag lenn lañ ci mën a def dénoncer pour que justice am moo tax ñun jigéenu Sénégal muy ñi bokk ci parti bi muy Pastef bokk ci coalition Yewwi Askan Wi muy ñi nga xamante ni dañoo tout simplement nekk ay démocrate bëgg jàmm ci réew mi ñoo taxaw tey jii bëggoon a wax ak askan wi. mais wax surtout ci li nga xamante ne nag mi ngi bëgg a jéggi dayoo muy li nga xam ne moom la traité le président Ousmane Sonko. nekk na Sénégalais ñu privé ko ci ay droit am tooñ ko dëkk ci di ko tooñ di dóor ci kawam di def lu leen neex ba boobu ba tey ñu jël ko dugal ci këram mënul génn mënul recevoir ay visite loolu foog naa ni euh, injustice weesu ko loolu dictature weesu ko te on en a assez de cette dictature. dañ doon toog foog ne xëy na am na fu muy yem mais la on voit carrément que toutes les mesures seron prises par ñoom pour que ñu tere ñu ñu wax. ku bëgg a def conférence de presse sañ nga ko mais doo ko fi defee ci Sénégal gii nga xam ni jàmm moo fi mës a am ci Sénégal gii nga xamante ni président yi fi jaar yëpp. ay président yu nangu woon yoon lañu même bu dee euh, askan yu ànduñu woon ak ñoom dañ leen daan may seen droit de dénoncer seen droit de manifester tey ñu ñëw fii ñu ne ñu du ngeen ko fi waxee du ngeen ko fi defee ça c'est inadmissible trop c'est trop président Ousmane Sonko nag on sera à ses du weet ko ci xeex bi di ko xamal ne ko metti na diis na waaye na xam ne du ci weet te incha allahu rabbi tout le peuple sénégalais est à ses côtés donc ñu toog ba xool ba xam fan la ñuy mujjee ñoom ñu ngi armé wu toog di ñu xaar xam nañ ne léegi ñu sànni ñu ay gaz lacrymogène waaye ñun pare nañu ki pare pour dee kooku mënoo koo jaay ko saf mënoo koo napp tamit ba yóbbu fi on est prêt pour que ce combat continue et c'est un combat légal c'est que un combat constitutionnel c'est un combat que les fondamentaux de notre République nous permettent de mener on ira jusqu'au bout incha allahu rabi loolu dinañ ci waxtaan léegi dinañ ci tontu. bu mhm. soobee yàlla les informations vont circuler mais pour le moment comme jotuñu ñoo may sax ñu wax nañ ñu bàyyi ñu xool naka la ñuy lijjantee lii ba pare ñu doog a xam. waaye nag droit de manifester moom. Mhm. Sénégal gi du fi mës a jugee. plainte euh, contre CPI bi nga xamante ne Juan Branco bokk ci ñi nga xamante ñooy layal Ousmane Sonko daal dina koy euh, rek ne wax ne dina ko def ñu gis ni ñi nga xamante ñoo féetee ci nguur gi génn nañ demante démentir xam ne euh, li ki nga xamante ne mooy seen avocat boobu di Juan Branco wax kese uh-huh. lan nga ci wax duñ na wax lu dul rek xanaa jaaxaan di saw sa kaw ndax booy saw jaaxaan ci sa kaw lay waddaat kon lépp lu ñu wax fii ñoom dañu wax lu leen neex mais opinion internationale dinañu xam fi dëgg féetee nous avons des preuves Nous avons tout ce qu'il faut pour montrer que nous avons affaire à un État bandit, nous avons affaire à des euh, euh, euh, dictateurs, nous avons affaire à des des des, des Sénégalais qui pensent que ñoom Sénégal réew mi ñoom groupe bu ndaw moomu kese la ndekete ñun ñi bokkuñu ci ay visiteurs lañu wala ay extraterrestres ñu war ñu fee jëlee te loolu dafay jeex parce que duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. continuer continuer dans la stratégie de combat. continuer fexe ba détenu politique yi ba ñu wéet fi ñu ne ñun ñoom ñooñuy ñooñuy ñooñuy may doole ñooñu ñooñuy may fit parce que saa yoo leen gisee ñu ne leen continuer leen on est la on vous soutient ñun ñoom ñooy tax ñuy xeex mais ñoom ils sont là pour nous soutenir te xeex bii barki salaatul faatiha du nax saay xeex bii dinañu xam ne détenu yi ñu téye mbégte la ñu am toog foofu ñun ñii ci nekk ànd ak ñoom fierté la ñu am ci ñoom xeex bi day continuer bu soobee yàlla li nga xam ne war nañ koo def nag dinañu ko def ba li nga xam ne moo war a am mu am bu soobee yàlla. suba la président fas yéene jàkkaarloog askan wi waaw ñun pour le moment loolu intéressé wuñu parce que moom dialogue am ak i waxtaanam moom la intéressé ak i ñooñam ñun loolu intéressé wuñu li ñu intéressé mooy ni mu war a doxalee te doxalewu ko. ñu ne ko non lii la ñu bëgg a doxalee mu ne moom amul kenn ku muy déglu lu ko neex ak ñi muy àndal leen neex rek lay def ñu xam ñu bëgg koo xamal nag ne ko Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaye Sénégal gii nag dafay Sénégal goo xam ne doomi Sénégal la ko moom benn groupe nit moomu ko te tôt ou dina fi jóge ci nii wala ci nale élection yi du ci bokk troisième mandat bi duñ ko nangu mais na xam ne surtout du bokk sax ci ñuy organiser élection yi. élection yi mën nañu bu doon sunu sago ñëpp bokk bu doon sunu sago ñëpp bokk parce que sénégalais yëpp am droit. ku gis ni moom war naa mën a euh, ku gis ne war naa mën a bokk yow mii sax bu la neexoon nga ñëw nekk kandida waaye sa candidat sax gënal ma waaye dafa am ñoo xam ne dañoo foog ni ñoom ñoom ñooy wax ki ñuy bëreel ñoom ñooy wax ki ñuy jàkkaar lool ndax ñoom ñooy téye ay loxo takk ay tànk ba mën a daan ki ñuy bëreel loolu c'est pas de la démocratie Ousmane Sonko nag wax nañ ko ñun mooy sunu candidat mooy sunu plan A mooy sunu plan B mooy sunu plan C mooy sunu plan Z amuñu beneen. kon dañu fas yéene taxaw xeex lii ñuy xeex muy dëgg ci ñun mu metti ci ñun ñu ci subir lu méttee méttee métti dans notre chair mais mu jaral ñu ko donc on ira jusqu'au bout. kon mën nañu li ngeen di ngeen ñu dégg léegi bu soobee yàlla ñu ngi toog di waxtaan di concerté wu dinañu xam ndax fan lañ koy defee waaye conférence de presse kenn mënuñu ko teree def mënuñu ko teree def soobee yàlla. acca kon mi ngi noonu aywa merci beaucoup. nee noonu comme dañu wax man li may wax moom dama koy dama koy denc ba ci kanam. damay pause ba ci kanam. non li ñu war a wax. non tey li ñu war a wax. du i sàll moo ñu ko mun a téye ñu wax ko. bu ñuy dugg ci néeg sax dinañ ko wax ba askanu Sénégal yëpp dégg ko du ñu ragal du ñu daw. Sénégalais yi dañu lañu soxla waxal. li xew ci réew mi. parce que lii ñu def président Ousmane Sonko neexuñu tey ñu suba ñun mënuñoo nekk di tabaski nekk suñu kër yi nekk suñu ay njaboot moom mu ñu def ko nee ñu ko def te lee ñu ko def képp kuy gor boo xoolee di nga xam ne loolu rafetul du yëfu gor defoo waxoo ñu bëgg la tëj ci benn endroit pendant des mois am duñ ko nangu ñu ko xalaat day génn suba comme ñëpp def tabaski kom ñëpp bu neexee yàlla te dinañ si taxaw waaw mi ngi mi ngi noonu ñu daal di jël euh, ki nga xamante ne day fas waxtaan waxtaane au nom de la jeunesse de Yewwi Askan Wi ñoom tamit bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne ñoo waroon a jàkkaarloo ak nga xamante ne ñoo taskatu xibaar indi information salaamaaleykum waaw maa ngi fi ñu leen di ziar di leen di sant bu bu baax euh, maa ngi tudd Mambiji Sargent ah. euh, donc tey situation bi nga xamante ne tey moom moo nekk fii ñu ko ñu ñu koy dundloo yaakaar naa ne injustice weesuwul loolu parce que bi ñu ñëwee euh, dama ànd ak euh, Dieng quand nous sommes partis ñu dem euh, interpeller gendarme yi bi ñu ñëwee dama leen ne ñun ñooy organiser fi dañu am pour dugg mu ne ma la manifestation est annulée ma ne ko mais attends quand même du yow yaa war a manifestation parce que ñun ñooy organiser ñun ñoo wax xam ndax dañ koy annuler wala duñ ko annuler après ci la chef bi ne ci la chef am bi ne ma Euh, dañu interdire rassemblement dañu interdire euh, euh, manifestation bi ma ne ko manifestation bi mënuñ ko interdire rassemblement certes oui mun nañ ko interdire parce que bu fekkente ne tey gouverneur génnee ne arrêté ne dafa interdir rassemblement ça un vous le concept mu ne ma non dañu interdire maintenant accès wu lieux yi ma ne ko mais comment ñu interdire accès wu lieux yi est-ce que ñun mun nañu xam tey les motifs yi nga xamante ne tey moom moo tax Euh, ñu interdire accès bi mu ne non on a reçu des ordres hein, pour interdire accès bi donc loolu yaakaar naa ne tey euh, su su suñ ñu ko waxee jaay doole pour man weesuwul loolu loo xamante ne tey yaa ngi koy def ci lieu boo xamante ne lieu privé la foo xamante ne permanence la nga am droit nekk ci biir def say activité ñu tere la nga dugg ci si ci biir je pense que ne forfaiture ëpp weesuwul loolu donc tey lii dafa war won askan bi ne tey Macky Sall ak euh, ñoñam maanaam le gouvernement tout entier li nga xamante ne tey moom la ñuy njott ne moom la ñu nekk di doxal mooy que ne dañuy installer benn euh, euh, psychose boo xam ne ci population bi neexul dund. parce que lii mel na ni tey ñun ñu ngi ci état providence état boo xamante ne état alkaati la te soxlawuñ loolu jàmm lañ soxla quiétude la nit ñi soxla donc kon tey population bi li ñu leen mën a wax mooy il faut plus de détermination tey. pour faire ce que l'on appelle la résistance parce que résistance kese moo ñu mën a dindi ci lii ndax bëri na ay forfaiture yoo xamante ne tey mu ngi am ci kaw ñi nga xamante ne tey mooy ndawu askan bi pour lan pour téye baatu askan bi ndax nag ku xool tey ni nga xamante ne noonu la ñu assiégé euh, cité kër góor gi nga xam ne mucc nekk teguwut ci yoon donc kon am na si loo xamante ne c'est le minimum que les gens puissent faire donc loolu kese lañ amoon lu ñuy wax pour siyaar leen di leen ci bégal ko merci beaucoup. mën naa woon ana soo ci kase bu ko yor. xoolal lii rek ñëwaat nañu mu ngi nii ngir daal di rek tas am am micro ah, eh? bi rangé bi micro bi laa bii mi ngi noonu eh, mi ngi mel ni rek eh, daal di nañuy ñëwaat ngir daal di tas li nga xamante ne moo xew fi nga xamante ne mooy ci siège bi ñu jéem a xool ba xam. peux le comprendre, mais que je sois là, qu'on me l'interdise, je ne le comprendrai pas. Non, je ne peux pas le comprendre. Non, ah, non, je ne peux pas le comprendre. Ah. Non. ci mi ngi noonu Malick Gakou rek la ñu rek daal di interdire li nga xamante ni mooy sa présence fi nga xamante ni mooy ci euh, siège bi mi ngi noonu ñuy daal di jël rek di ko dugal ci li nga xamante ni mooy ci këram sama sachet bi ko ko moom la laaj nañ dem ba dale dinaa dinaa ko gis ñu avancé ba fees mi ngi noonu dañ doon jéem a def rek li nga xamante ne mooy conférence de presse bi ci loolu lañ leen daal di rek tere li nga xamante ne mooy rassemblement am na ku ko formé xamatuma exactement tam wax moo xam naa ne mi ngi ci biir nit ñi nii noonu na ñëw daal di xool ba xam euh, dañuy sànni lacrymogène ou pas mais tamit euh, lépp lu mënti xew. salaamaaleykum. maa ngi toog nii. ñii dañoo dem pour sànni lacrymogène mais bon dañ ñoo xool ba xam dina am wala du am ndax tamit dañ doon jéem a tere ki nga xamante ni dañ doon jéem a tere mooy ki nga xamante ni mooy Malick Gakou fi nga xamante ni moom la taxawoon rek lañ ko doon waaw ni mu ne moom rek nañ doon daal di tere ndax tamit nag daal dinañ tas li nga xamante ni mooy ful bi nekkoon dañoo pare pour dóor dañuy pare pour dóor la kenn ma jël sama sachet bi yaa ko jël. Ah, merci beaucoup. mënoo koy ñaar tey sonal na ma. ko fii rek ba ma pare. maa woon na am sa téléphone téléphone bi laa jox ma téléphone quoi téléphone. mais jël ma bagage bi nga xam sama papa mooy jógee waaw mi ngi nii aca kon mi ngi noonu ñu ngi noonu euh, ñu xool ba xam euh, dinañ sànni li nga xamante ne moo di lacrymogène wala ndax tamit nag euh, ñi nga